bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci duniyaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaare kañaa nal jaaratullaahi budul ko nag sunu maam maryaama jaaratuna ko ñépp jaari cey jaaratullaahi budul ko nag rawdatu maam jaare fi poroxaan kon wóor ya daaxare dun dem jannatullaahi nee leen ko alhamdulillahi alkarimi ndegam tuubaali man baalaxaayi maam jaaratullaahi nee leen ko alhamdulillahi alkarimi ndegam tuuba li man baalaxaayi maam jaaratullaahi xaddisi ba ne ku dajeeg taarix ba topp sëriñ tuuba du dem naari ngir maam jaaratullaahi xaddisi ba ne ku taarix ba topp sëriñ tuuba du dem naari ngir maam jaaratullaahi ñeneen tu téeméeri at junni mooy lañu wax loola di fanweeri at ngir Bamba lillahi nee bu so jaaratuna yaa doon Mariama yow maam jaaratullahi yaa doon Mariama yow maam jaaratullahi Iisa ibnu Mariama ruuxullahi kun laamoon jibriilu ñëw fa yakoonu jaaratullahi Cheikh Bamba ne xaadama lam yakuneeg la mu am wala yakunu li mumkinin min allahi maa lay nuyook ziyaaraak yërëm du fi yow xol yaa ngi ruu sun cër yaa lillahi yaa jar siyaare diraam tey sukku tey joxe hëddiya lillahi ngir maam jaaratullahi nangu nu suñ yéeni ak suñ jëfi nangu gu wér te boole noog bamba fil jannaati billaahi bu nu yàqu bu nu yoqi bu la bamba defoon saadix bu sax ci ndigal ngir jaaratullaahi umu xadimi rasulillahi jaddatuna mam jaara bu soonu selmal jaaratula umul xadimi rasulillahi jaddatuna mam jaara bu soonu selmal jaaratullahi dem leen siyaare ji sunu mam jaara xudwatina roy teef la fii poroxaan cay jaaratullahi dem leen ziyaare ji sunu maam jaara xudwatina roy teef la fii Poroxaan jey jaaratullaahi ngir moonu wan ku nu doyloo doy rasoolu ta doy rabbul waraa Seexu Bamba jaaratullaahi doy loolu doy doy na Seex Bamba doy abadan te moo doonay xayru xalqillaahi billaahi doy loolu doy doy na Cheikh Bamba waanu doy abadan te moo doonay xayru xalqillaahi billaahi jaajëf te jaajëf ndeyaa jëf jëf ju tax ba nu am ku kenn amul moo di xutbul xalqi billaahi taajul karaamaati fii moo ko yoroon tiijeen ak xaadirook naa jaaratullaahi raayu neel wa ca diiwaan ak dogal ya faam sa dooma yor lépp yow maam jaaratullahi waa mulku ak malakoot ak peyi arsi ya sax Cheikh Bamba lañ daa safoo yaa jaaratullahi yaa doon sawturandoo Mariama yaa ko fi roy yaa seere kun fayakoon mu jaaratullahi seereel ne yaa baari ay ndam yaa mit jërëjëf yaa boole baatin wa baahir jaaratullaahi yaa donnu aminatun yaa donnu asiyatun yaa donnu fatimatun am jaaratullaahi yaa donnu aminatun yaa donnu asiyatun yaa donnu fatimatun am jaaratullaahi yaa boole ay ndam ci biir ak biti yaa matoroy di xeeñ sa mor faw jaajëf jaaratulla